man man man man daal dama tëdd ay ay onze onze heures ci guddi diggante onze heures rek ay ay ay man yuuxu ay yuuxu yoo ma yee man man dégg yuuxu rek ay ñuy dégg buntu yi tell tell ay ay dajji ay buntu rek man man boobu boobu laa yeewu ma ma tasante ñu tasaaru ci biir kër man sax bi bi may génn ak ak kuuru baay fa laaj ma xaare ci buntu bi no dema bu ma ko amul woon nu ma def bon demay rey waaw noonu la dafa fekk lépp jaxasoo nag léegi man bu fekk ñu wóolu wolu nañ go gone génn nañ ñu ñu ñu jàkkaarloo ñoom ba ñu biñ ñu génn leen kër gi. ñu ñu de ñu demaat nag ñu ñu ñu bétéraan ba ñu ñu ñu ñu ñëwaat ñu ñëwaat nag léegi ñu ñu taxaw ci ci ci kër gi ñu ne leen léegi moom kenn dootu dugg ci kër gi ba fa tasante rapport bi ñëw na. ak rey nañ ñetti béy yóbbu nañ juróom fukki kar gaañ gaañ nañu ñetti ñetti suñu ñetti gone. ñoo Baye Fall yi Baye Fall ah, man kay man kay xawma de bi ñu bi ñuy coow ak ñoom feere ñoom ñi yor oto bi ñoom ñëw fii ñu bi gét bi ñuy sarse ñoom waaw sarse rek bi ñu laata jóge fii bi oto fees ñu dem bi bi bi bi commandant ñëwee naa ko yëpp kër gi yëpp fu ci ne dugg na ci mu mu wiri fi wiri fi jisul dara gisul ngarnaay gisul poon jisul dara suñu gone yi am na yoo xam ne suñu gone yi boobu jàpp nañ leen ñu yóbbu leen commissariat fay waxuñ dara de ñoom ñoom waxuñ dañu wis si waxuñ dara ñoom ñoom ñoom ku dañu taxaw buntu ñooy ana góor yi ko génn la ñu rëy leen génn leen ñu rëy leen la la man la man man bi ma di yeewal loolu laa dëkk génn leen ñu rëy leen génn leen ñu rëy leen si si si sama rakk bi ñu bi ñu toj boppam non non non mu ngi yoroon caméra am ka quatre cent cinquante mille noonu lañ ko yóbbaale waaw dee dee mosu ñoo sekk ak ñoom dara mosu ñoo ñoom dara mosuñoo sikka ñoom dara ñun moom ñun moom ñun moom mosuñoo mosuñoo wéranteeg Baay Faal sax wala wala kuloo wala sikka moom daal ah moom de moom moom de moom nee na nee na nee na nee na bu buñ lefi ne buñu buñu buñ jugee ci lee ñuy def bu buñ buñu lefi ne bu amee ay fan bu seddee de ñëw ñu mën a ànd ak moom foofu ñu dem ca ca ca kalifa bi ñu balante ak noonu daal wax génn yaa ngi tëdd ba ba ba nit ñëw ci yow mu léegi armée moom li koy génn ñoom ñoom ñoom ñoom fi ñëw bu ñëwul woon fii duñ gis arme ñoo dugg ci kër gi ñoo ñoo ñu bëgg ñoo faagaagal waaw waaw. fii lay tëdd di xaar di ànd di wattu géttam dafa tëdd man mu dugg sama néeg sama baay xaar ko après mu jàpp ba pare julli daal di tëddaat ci lalam jàkkaarloog juraam ci la ñu ñëw fekke ko foofu ci lañ ko song dóor ko. warifuñ dara xooluñ dara lu da jàpp ci naan nañ sooma ci néeg ba vérifié nañ bagage ba jël sama doom yi te doon sànni ko ci état bu gone gi nekk mooy parental bi ma jëloon léegi sànni ko ci état bi noonu muy wër noonu ah léegi leneen mënoon na fay xew am nu mu doon demee tey paas nañ fii tey jii ah kon di nga fekk beneen néew waaye li ñu wax man gis naa néew fi ñu ne ma ko néew na man maa fa dem maa fa jël yeneen béy bi deewoon ma ñëw di ko sànni ko fan feneen dégg nga après ci laa ñëw di beneen bi indiwaat ko fii ñaari fekk mu dee dégg nga man aw ma keneen léegi ca lañ yu ko ca jaar ci biir kër gi wuti fetal génn dugg kër sa nijaay dégg nga léegi su fekkee ne am na lu ñu vérifié biir kër maa fi nekk léegi nañ fi suñ gisee dara ne lii la ñu jàpp ma yobbu wala ñu jàpp boobu wattu juri yobbu ko am du noonu waaye gisuñu fi dara vérifié wuñu fi dara laajuñu dara salaamaaleykum rek daal di attaqué ku tedd kay ku tedd kay yomb naa kana yàlla dimbali kay kon fi mu ne affaire am passé na. am déet ah yóbbu nañ sama juróom fukki xar ci juróom dem ba ci suba sax dem nañ ah xar yi dañoo naa xam nga ne kii oto yi ñoo ko jaay seen kor dégg nga après ci xar yi daal di daw toj gët bi tiit fee lañ nekk ci gennaaw ca lañ omma fii maa ngi taxaw fii bëgg leen dem ñu ne soo fa demee bàyyi fay rëy waaye kon dama doon jël samay xar ñu ne soo fa demee ñu rëy ndax boobu ñu ngi taxaw fale ñoo ko maa ngi dëgg ñu tit tit tit di ko door di ko door di ko yóbbu am na ay xar bi ñu bi ci des ni ci kër gi nii wëtt na boobu dañ koo damm ab béjjén ya après daal yàqal nañu yàqal bu méttee métti suñ ko doon jaar xam nga ne heure bi fi ñëw taf taf taf mënuñu fee nubbu dara am déet taf taf ni duggee kër gi ba fa li ñu attaqué ak président yi ni ñu dikkee fii est nañu fee nubbu dara xam nga xaju fi ah ay ay 11 heures ñun boobu lañ fi nekk fa lañ ba fajar gaa yi suutool ñoom mbir mi di man fi man njëkk a jaaxal mooy fi ñu ko jaaree si dañu doon wër li ñuy tere si dëkk bi ndax chef de village bii keroog bi sëñ Muntaxa waxee day tere si dëkkam nangam keroog tànkam la def kër yi fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam ñuy tere nangam te kër gi sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni mosu fee kenn mosu ko fee dégg hmm? léegi nag kuy tere loolu dox tànkam di wut tere loolu si biir si biir ay dëkk ndooyam kiram loolu war nañ ko faase yet nee nañu pool lañu doon wër nii lañu doon wër waaye fekk gisuñ fi dara ah jàpp nañu kii jël nañu ay juróom fukki xaram moom mi alaji dem nii rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi dóor ko ba mu nga jan natu ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah, keneen sa doomi nijaay kee itam kooku nag fii lañ ko dóore man maa ko yóbbu woon ndaamaatu yaa ngi dégg kii nga xam ne moom wattoon jur yi fii lañ ko fekk dóor ko mu ngi mu ngi hôpital tëdd léegi nag bu ñu defee noonu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rawale loolu dugg si biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu ne mun na faa war a xew man moom seedu wu ma baay faal bu dee seedu wu ma bal seedu wu ma lara man bi ma doyee ma ki gaa ki nga xam ne bu gaa ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gétta gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg gi jigéen bi doon wax fii mooy maga ay léeru ma dem ma ci néeg yi man moom foofu laa ci waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak terang ñoom ñëw nañu fi ñu naan am na ku ñu yónni ñëw na fii jënd jëndaat jënd jëndaat kanakay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiite mu naan ki moom a jaay jaayaat nu wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu max la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër seet village lañ jëm ñun kay jàmm rek lañ bëgg ni kii ni sëñ bi sante woon ni sëñ bi sante woon kii sant ñu ko ñun ci loolu rek la ñu wéy ci ndigal rek la ñu wéy ñun itam ba tey Baay Faal yi dañoo nekk Baay Faal waaye ñun itam ay murit la saadix lañ nangu murit itam ndax kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu daa sol dal la mooy chef du bi kër yëpp lii mu village yi yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm nuñu tam noonu dong lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gisee suñu bët sax ñun dañu koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere buñ ko gisee seetuñu Baay Faal seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a tereel suñu bopp duñu xeex nag duñu def dara suñu doom yi ñu jàpp dañu leen ramax rek fekk fekk ñu leen ci dara fee lañ fekkañ toog ci buntu bâtiment bee buñ leen fekkee foofu ñu ramasse leen ñoom yëpp yóbbu yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ci kër gi lañu dégg am na ñoo xam ne ci yeneen kër yi wër nii rek dañoo doo wëllu si rek am na ñoo xam ne sax dañoo agsi rek tombi ci ñu jëlaal leen noonu waaw loolu moom yoon moo xam lu tax mu def ko waaw loolu moom duñ sori ci loolu yaa yoon moo xam waaw man li ma njëkk a jaaxal mooy ay mi ay min wi moye kana kuy ñëw di visiter kër doo ñëw min wi moye nga war a xaar ba yoor-yoor wala ba ay dix heures onze heures midi une heure nga ñëw su fekkee dañ laa tegtal kër guy jaay poon wala sangara nga ne kër gii laa jëndoon poon wala kër gii laa jëndoon sangara ñu jàpp kila la ko jaayoon yóbbu ko am na wala amut waan ñëw dem ba mi bi mooyee ñëw taalu mot juróomi oto ñëw ba ci papar kër ngeen di génne ay jaaseeg door ak bant di di di di toj ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñ wistuñ wistuñ poon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgul yéen sax ñoom dañoo jékki rek jékki-jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgu leen ñoom kenn yëgu leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër gi kenn yëgu leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñu dóor fee dañoo fekk mu ngi nelew wana kana ku nelew moom defu dara léegi biñ leen wax dara góor yi fi ne anañ gën leen ñu nangam taan seen day lañ fi wax kese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu ne soxla wuñ jigéen ñi góor lañ soxla lañ gën nañ nangam taan seen day lii di lañ ma fi wax wax ñu fi leneen am na eh, béy gis ngeen leen wante xar yi gisul ñu leen wante am na lu am la yaa ngi dégg ñii ñu ko tëdd hôpital ñi yóbbu nañ seen alal ñi yóbbu nañ seen xar ñi yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall su fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kir da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay Baye Fall lañu ñun gisuñ gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu ñun gisuñu dé déedéet dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñu leneen ñun daal burwe Baye Fall lañ dégg ku la wax fii dégg na beneen burwe wax wax na nan lañ taxawee jigéen ñi wooy wooy wooy ñu yu yuuxandoo ñun ñëpp añ bi ci état bi ñun ñëpp jigéen ña moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñu fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bugg a dee lii lañ fi gis de dañoo bëgg affaire bi ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla ak jëmu Serigne Touba Mbacké ndax gënuñu ñoom gënuñu ñoo nekk ay murit ñun ay murid saa lañu yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fudul fii yaa ngi dégg daar rahman ñu fii lañu fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi ñu koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wogg foofu ay nag yaa ngi dégg kon nag génñu ñu ci sëñ Tuuba yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kabban kon nag xam nga ne gën ñu nekk ay murid sëñ bi sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo gën a ñun ñoo ko gën a mën a tere loolu la ñuy bañ fii lu mu bañ Touba rek ñu bañ nañ ko fii Baye Fall man bulee démb ma gis leen def ni façon bi ñu def bulee démb wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bu mu ñaaraat ñun béy ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee ñu bay béy yaa ngi dégg ñu ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara lu dul ay bor fii mooy cay faali euh, cay faali cay fa lii ñuy wax fii ay teenu maam Cheikh ak ay fii ak ay euh, sekew gaak dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñang sol bokk cay faali ba bëril waaw boo dëkk moo ñu fekk fii ñun borom dëkk boo ñu fekk fii de ñun fekk si wuñ ko moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkk moo ñu fekk ñun fekk fuñ ko de moo ñu fekk yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacke borom dir borom dekka moo ñu fekk de ñun fekk wuñu kenn yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol boog boobaril sëñ Gumba Sàll mais ndindi sëñ Fàllu ndindi pël ndindi sëñ fallu daar Rahman béyleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tout jumaa ja fii lañ doon def tànk julli jumaa ja saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fi duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk